du jour muy tijjite neuvième forum mondial de l'eau euh, def tax na nga def taxaw seetlu quand ci benn chiffre. voilà chiffre boobu euh, wax nga ko juróom-ñeent comme pour illustrer le neuvième euh, forum mondial de l'eau de Dakar bi am tey aussi cat de Diamniadio bi nga xamante ne nag conseil mondial de l'eau ak état du Sénégal ñoom ñoo ko co-organisé. thème bi di sécurité de l'eau Euh, pour la paix et le développement donc euh, ñu ci xaar 5500 personnes yi nga xamante ne euh, ñu ngi jógee ci téeméer réew ci ci biir àdduna si ngir mën a fexe bu bokk ci forumu Dakar bi 1200 yi nag ñoom fii ci biir Sénégal lañ leen di xaaree muy nar a rassemble nag ay chef d'état yu bëri secteur privé société civile et associative ak tamit ay organisation internationale lu mel ni banque mondiale donc union africaine moom nag daal di jàpp nekk mbir bi caractère inclusif la la daal di amee lool ñoom tamit benn sommet spécial de chef d'État et de gouvernement en marge toujours de ce forum mu nar a nekk nag un puissant catalysateur euh, catalyseur politique montrant fragilité yi nga xamante ne continent africain koy jànkonteel mm. euh, ci wàllu euh, ndox bi face surtout au réchauffement climatique donc donc ce ce forum bi nga xamante ne c'est en marge de, de du forum organisé ici à Dakar donc de l'Union africaine dañ koy nar a def au sein même a jeex samedi 26 mars 2022 avec une foire d'exposition de 5300 mètres carrés de stand soxna Fatick lan mooy caractériser forum bi ces caractéristiques. voilà donc euh, forum mondial de l'eau bi mooy mooy euh, plus grand événement bi nga xamante ni c'est lié euh, à l'eau donc euh, dans le monde chaque trois ans nag lañ ko doon wax sànq conseil mondial de euh, moom moo koy euh, organisé et puis en partenariat ak euh, benn pays hôte bi ñu bi ñu tànn et puis 96 conseil mondial de l'eau moom lañ daal di créé nekk moom fondateur ak organisateur forum mondial bi moom nag lan mooy objectif am mooy catalyser l'action collective pendant et chaque forum donc mu di benn possibilité communauté internationale euh, bi nga xamante ne ndox bi moom moo leen tax euh, jóg mm-hmm. ak principaux décideurs yi neen mën a collaborer ak euh, progresser à long terme sur les défis mondiaux liés à nar a nekk nag neuvième forum de Dakar bi le premier forum bi ñu nar a fii ci Afrique subsaharienne ñuy fàttali que nekkoon na fi jusqu'ici mm-hmm. la seule ville au Maroc en tout cas Maroc fi le seul pays en Afrique woon c'était en 1997 ñuy fàttali tamit que le huitième forum mondial de l'eau avait eu lieu en 2018 c'était à Brasilia mhm. euh, donc euh, au euh, Brésil naturellement les enjeux en Afrique et dans le monde bëri nañ ñuy fàttali que depuis 2010 le droit à l'eau potable ki ki di waa organisation des Nations Unies daf ko reconnaître comme un droit fondamental ñuy fàttali donc malgré cela l'Afrique subsaharienne bokk na ci zone géographique yi nga xamante ne ñàkk ndox potable moom moom moo ci gën a exposé ci ci biir àdduna bi à l'heure actuelle un Africain sur trois mu ngi subir un manque euh, d'eau criard ponctuel ou chronique 400 millions de personnes en Afrique subsaharienne plus globalement euh, n'ont pas accès à l'eau potable bu ñu sukkandikoo ci Organisation des Nations Unies et puis plus, glo plus globalement dans le monde

villes et villages du pays euh, ba léegi amaguñu euh, ndox bu euh, ndox bu potable rek seen mm. seen biir kër conséquence mm. population yu bëri ci zone urbaine ak rurale yi ñu ngi approvisionné wu ba léegi ci teen yi ak borne fontaine on va y arriver hein, par la preuve par par l'image donc mm. ñu gis na ne malgré la mise en branle de l'usine Kër Momar Sarr 3 KMS 3 ak remplacement SDE par Sen'Eau en 2018 ba léegi koñu Dakar yu bëree bëri amaguñu amatuñu amaguñu ndox manque criant d'eau certains étant obligés même de veiller jusque tard dans la nuit ngir mën a fexe ba am ci liquide précieux boobu des secteurs à Dakar mm. et à l'intérieur du pays ñoom ñu ngi continuer de subir euh, li nga xamante ni moom la mauvaise qualité de l'eau et justement mm-hmm. euh, pour illustrer ce qu'on est en train de dire on regarde et on revient voilà donc euh, la preuve par l'image mu di euh, Malick euh, Ndiaw ah si waa Ndaw moom moo ko voilà moom moo publier bile image donc sur les réseaux sociaux Facebook samedi pour illustrer gis nga qualité ndox bi nga xamante ne moom moo amee ci benn bërëbu Dakar préciser wu ko nag muy laaj nag waa forum de l'eau lan la ñu xalaat ci lii je pense que peut-être on pourra en parler dans prochainement alors euh, muy loo xam ne quand askan bi ñu ngi koy dund si vous regardez bien ces euh, images ce sont des images quand même euh, très fréquentes su ndox robinet yi su xelliwul mm-hmm. askan bi sonn bu xellee itam léeg-léeg mu indi ndox moo xam ne c'est du ñu mën a wax eau potable même si ñenn ci spécialistes yi dañ naan la léeg-léeg c'est utilisable mais askan bi quand même mm-hmm. amuñu ci confiance et c'est tout à fait normal su weesoo loolu mm-hmm. Marcel Farba Maroun jafe-jafe yooyu sax am na quand même dëkk bu mhm. jege Euh, capitale du Sénégal. bu koy illustré tamit donc à part image ñu wane sànq mu di Diender au-delà de toute logique mu di benn village on le rappelle situé à environ 70 kilomètres de Dakar euh, benn village bu sujet à li nga xamante ne moom mooy pénurie d'eau euh, depuis au moins deux mois Diender nekk benn terre de maraîchage quand même nga xamante ne gis na ne état bi construire na fa toll ci onze forages ci terre yooyu pour combler déficit en mu di donc benn paradoxe ngand ndax ba léegi Diender manque euh, d'eau bu ñu sukkandikoo ci yenn euh, comme Matar Ndoye nekk président fédération des agropasteurs de Diender moom nag waa l'observateur la doon euh, déclaration bi nee c'est inadmissible da nga war a yeewu deux heures du matin ngir mën a fexe ba am ndox ba espérer avoir de l'eau et c'est au maximum 40 à 50 litres moom nga ciy amee au 21 mondial de l'eau alors que ay villages yi nga xamante ni sori wuñ dara Dakar ñu ngi ñu ngi ñàkk ndox culture ngi koy ressentir foofu noonu ak changement climatique bi ñoom euh, bi euh, dafa dafa wàcc et puis yi ñu ngi commencé di euh, di tarir mu ni donc benn situation bi nga xamante ni jar na jar na gestu mm-hmm. on va terminer justement avec benn mini bi nga xamante ni quelques membres de la société civile ñoom ñoo ne dañ koy nar a organiser dafay nar a nar a organiser à la même période du 21 au 26 mars 2022 au font face les populations certains membres de la société civile euh, di euh, donc annoncé tenue euh, exposé bi ngir dire que pour mën a fexe ba boole li nga xamante ne moom mooy luy refléter la réalité sur le terrain soxna Fatick. alors muy débat boo xam ne sànq maa ngi koy wax mun nañ ci toog toute la journée Chérif muy data wala boog Sénégal et ses problèmes d'eau mu soxal nag neuvième forum forum mondial de l'eau sànq da ngeen fi wane benn vidéo Fati bi Malick moomu publier. bi mhm. Marcel nga ne gars yi nee nañ c'est utilisable. Mhm. non ñenn ci euh, euh, euh, kilifa yi dañ leen doon invité ci plateau yi ñu ne ñu ndox mi. Hmm. leerul wala kii ñu ne la ndox mi bu nañ ko naan Cheikh li may wax xam na ko. est-ce que ñoom bu leen ko joxoon dinañ ko naan moo tax mais askan bi duñ ko naan. Hmm. quand même ñenn ci ay kilifa dañ naan la non c'est pour dire rek amul ndox mi c'est utilisable. waaw ku naan utilisable ñi koy c'est ça ko ci jox du ko naan du ko jox waa këram ñu naan. Mm. waaw donc noonu je pense que il faut que surtout côté boobu défi bi gën a kii fii ci Sénégal mooy euh, wàllu ndox surtout qualité bi. Mm-hmm. parce que bu fekkente ni da ngay jox nit ñi aussi ñuy fay fii Sénégal boo xoolee seen eau ñoo fi ñëw ngeen ko sànq depuis mm-hmm. euh, bi ñu fi ñëwee ba léegi remplace PS2 problème yi ñu ngi fi ba léegi entier déjà. ndox amul mais facture yi cher na cher goo xamante nit ñi mën ci jot amul qualité bi la même chose surtout foo xamante ni des fois day am travaux da ngay dégg ñu ne ndox mi dafa contaminé boo demee waa Parcelles la ñuy dund boo demee ci monde ak directeur OFOR leur problème reste entier baykat yi aussi parce que ndox du rek nga xamante ni moom la naan ñi nga xamante ni ci maraîchage la ñuy dund wax ngeen ko waa Jandeer ñi nekk zone des Niayes ils sont confrontés à ces problèmes bu Sénégal et cetera défi bi ñu war a relever. Mm-hmm. ci l' accès à l'eau boo xoolee sax ñu ngi naan OMD yi bi ñu ko doon wax yàgg na deux mille trente et chaque fois ñu ngi joxe ay rendez-vous ci agenda mais pour ñu atteindre ko amul parce que li koy waral mooy. Mm-hmm. ñi nga xamante ni ñoom lañ ko dénk liggéey bañ ci war a def duñ ko def buñ ko defee tamit ak askan wi tax ñu koy jot duñ ci am satisfaction te paradoxe bi nag mooy ndox mënu laa wër ñun boo xoolee Sénégal ñu ngi fleuve Sénégal. nga jël fleuve Gambie nga jël géej gi fu ci nekk foo xamante ni quand même opportunité waroon doon ba problème mu ndox waroon du am mm-hmm. israéliens yi par ci wàll woowu boo xoolee ñoom li ñu am ci ndox bariwut mais boo xoolee ay goutte à goutte yi sax fii boo xoolee projet Prodac bi ay Israël ñoo fi ñëw di ñu jàngal goutte à goutte bi wala ndox mi naka lañ koy war a gérer donc mm-hmm. je pense que monde bi am na ci dëkk yoo xamante ne exemple lañ ci wàll woowu Sénégal waroon faa mën a dem jëm jëggaani fa étant donné que am na ay spécialistes yoo xam te boo demee université Anta Diop wala yeneen i daara mm-hmm. ñu fay jàngale ci wàllu ndox su ko defee kon ñu mun ko capitaliser jëriñoo ko moo gën chaque fois aussi éternel recommencement ci wàllu ndox et justement euh, Fatick gis na sànq Marcel euh, di junjo ay nit ñoo xamee ni ngi wax ñu euh, ngi amal forum de l'eau ci dëkk boo xamee ni am amut ndox moi je pense que peut-être on n'organise pas le forum de l'eau parce que y a de l'eau en abondance au Sénégal mhm. je pense que c'est surtout pour parvenir à trouver des solutions à régler cette problématique et puis surtout ci financement euh, gis nañ ni quand même ça pose un gros problème gis nañ sànq acteurs yi ci yëngu euh, liñ ci wax on espéra quand même on espère que des solutions vont être euh, trouvées parce que l'eau c'est c'est la vie voilà soo ko amul doo dund voilà loo source de vie noonu lañ koy waxee et puis li ñu jàngal loolu sax bon sens la mooy incolore inodore sans saveur donc am na ndox yoo xam ne quand même lu ñu la ci mën a wax Euh, sa xel du dal euh, et puis euh, ni ko Marcel waxee ce n'est pas uniquement dans la capitale puisque dans la capitale chaque jour nga gis askan bi ñu génn ñaxtu seen ay jafe-jafe réew mi ne xel wu ñu ngi wéy di fay factures yi mais ci biir réew mi également euh, jafe-jafe am na la dernière fois il y a euh, deux il y maa ngi dem Touba euh, fekk benn quartier askan bi yëpp gàddu seen ay bouteilles ma laaj leen ñu ne ma depuis màggal ba léegi amuñu ndox c'est tout à fait c'est très compliqué dañuy jënd ndox pour naan jënd ndox pour togg jënd ndox pour sangu et ce n'est pas uniquement là-bas am na ay zones yu bëri et puis on espère quand même qu'avec ce forum de l'eau dinañ am des solutions durables. capitale Ndakaaru di tabax en hauteur hmm. loolu aussi moom bailleurs yi comme ñu ngi doon wax location vraiment il faut ñu koy installer da ñu xam day tabax immeuble quatre cinq étages ci kaw hmm. guddi ba guddi la ñëfa dëkk di am ndox dañuy xaar ba guddi duñu nelaw pour mën a am ndox parce que sous yooyu comme mais la preuve ngay njëkk wax moom mooy ndax kër gi am na ndox am na voilà parce que sur aussi loolu loolu bailleurs yi la seen faute la parce que duñ ko bëgg jënd te am na ñoo xam ne dañuy dañuy sonn wala buñ ko jëndee bu ñu xëyee euh, problème yi daal bëri na mais bon loolu moom du ci euh, euh, forum bi je pense que ce sont les bailleurs ñiy tabax hauteur war a jënd sur presseur pour les locataires léegi léegi. code de la construction yooyu yëpp am na ci ay règlement yoo xamante ne. voilà <laughs> Chérif il est 7h35. il est 7h35. bëgguma ko woon dagg bëgguma ko woon dagg parce que Cheikh Tidiane fu ma romb fu ma romb ci Dakar danga may taxawal naan ma bàyyi leen Chérif léegi nag